Serigne Makhtar Fall Serigne Makhtar Fall mi ngi feeñ jamono ci atum 1903 ci dëkk boobu nag di Njiig faal di doomu soxna Assane Diop ak Serigne Modou Absa Fall moom Serigne Makhtar Fall nag am na ñu mbokkal soxna Assane Diop ak Serigne Modou Absa Fall ñu mën cee ràññee ku ñuy wax Serigne Modou Assane Fall ibnu soxna Assane Diop ibnu Serigne Modou Absa Fall Serigne Mayoro Fall ibnu soxna Assane Diop ibnu Serigne Modou Absa Fall soxna Xari Ñaan Fall bintu soxna Assane Diop bintu Serigne Modou Absa Fall soxna Kumba Galo Fall bintu soxna Assane Diop Diop bintu sëriñ Modou Absa Fall soxna Assa Fall bintu soxna Assane Diop bintu sëriñ Modou sa Fall ak moom sëriñ Makhtar Fall ibnu soxna Assane Diop ibnu sëriñ Modou sa Fall ñii nag la bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen laataa ñuy wéy sax ci mbirum sëriñ Makhtar Fall mi ñu wax leen dëkk bi mu feeñe jamono nag di njiig Fall dëkk bi nag mi ngi si nag di Njàmbur ci région bi itam nag di Lugaloo dëkk bi nag maamam ju ñuy wax sëriñ ma yoro ndaak Fall moo ko sanc nag ci atum 1796 juróom moo dox nag diwaanug lugaloo dëkk bi mu gën a dendal itam nag mooy sàkkal sëriñ ma yoro ndaa kebe faal mii moo sanc nag dëkk bii nag di njiig faal sëriñ ma yoro kebe ndaak faal mii nag moo meññ sëriñ sayar anta sekk xujja kumba faal sëriñ sayar anta sekk xujja kumba faal mii moo meññ sëriñ maxtaar ndaak kumba galo faal sëriñ maxtaar ndaak kumba galo faal mii moo meññ sëriñ moodu absa faal sëriñ moodu absa faal mii nag moo meññ sëriñ maxtaar faal mii nag ñu fas yéenee waxtaane bisub tay bii sëriñ maxtaar faal nag di doomu soxna asan jóob soxna asan jóob nag mi ngi cosaanoo nag ci dëkk bu ñuy wax nag kër maa anta Diop sëriñ Moodu ma anta Diop nag moo ko meññi nekkoon itam nag nitug diine nekkoon itam nag jàngalekatu alxuraan nag bu ñëpp xam itam nag ci tund woowu moom sëriñ Maxtaar Fall nag waajuróom wu góor mooy sëriñ Moodu sa Fall sëriñ Moodu sa Fall mii nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul la ba am nag ngërëmam bi mu matee dal alxuraanul karim nag moom sëriñ Maxtaar Fall waajuróom di sëriñ Moodu Absa Fall moo ko dalal alxuraanul karim nag ci dëkk boobu nag di njiig boobu nag di njiig faal dem nag ci dëkk bu ñuy wax nu ngunta ngir wéel nag am njàngam waaye waajuram sëriñ moodu ab sa faal nag moo ko jëli lu doon ko xamal na nag dama bëgg na nga nekk ci sama wetta di ma liggéeyal waajuram wu jigéen nag di soxna asan jóopa moo dem nag ci njóobeenu ngunta jëli doomam jooju nag di sëriñ maxtaar faal ginnaaw bu sëriñ maxtaar faal nag ñibbisee ci dëkk bii nag di njiig faal waajuram sëriñ moodu ab sa faal mi ngi ko doon xamal ne foo man di dem nag deme fa sama ndigal te nag sama barke nag doo ko am lu dul nag dangaa toog nag sëriñ maxtaar faal nag di ko xamal ne bëggoon a sàkku ji xam-xam moo taxoon itam nag ma dem foofu waajuram nag sëriñ moodu absa faal nag di ko xamal ne soo toogee nag ci sama wet wéyal nag samay ndigal lépp loo xam ne nii nag sa mag ñi am nañ ko nag ci xam-xam da ko am itam nag ci xam-xam lépp loo xam ne nii itam nag am nañ ko itam nag ci barke da nga ko am itam nag ci barke loolu moo waral nag doomam jooju nag di sëriñ maxtaar faal wéy nag ci loxoy waajuram waajuram nag def ko jëwriñu kër ga mu wéy nag ci loxoy waajuram nag ba ni waajuram génnee àdduna loolu itam nag moom moo Maxtaar Faal e gul mu nekkin nag ku bëgg waajuram ku am fititim nag ci ginnaaw waajuram ku yemalewut waajuram ak dara mu nekk nag ci ron waajuram nekkitim nag jëwriñu waajuram fépp xam ne nii nag waajuram nag daana fa dem doomam ji nag di sëriñ Maxtaar Faal nag la fa daa yónni moo xam Saalum moo xam Bawal ba ci suuf soosu nag ñu nekk nag di njàmbur tax na sëriñ Maxtaar Faal lu takkoo takku nag ci ay taalibe am na ko nag ci suuf soosu nag di njàmbur ak Bawal ak Saalum ay turandoo itim nag am na ko itim nag ci ñetti tund yooyu bi mu nekkee jëwriñ nag ci ron waajuram ànd naag mbooloo mu bare bare bari nag di liggéey ngir jëmmi waajuram moom woowu nag di sëriñ Modou Absa Fall ca biir mbooloo ma nag ñu man caa ràññee ku ñuy wax Mortala Fay ci dëkk bu ñuy wax Muslaaj ca sëriñ Biraan Ndaak Saar sëriñ Baara Sambu sëriñ Abdou Ramata Diop ci dëkk bu ñuy wax Kër Kodde sëriñ Modou Diop Jaw ci dëkk bu ñuy wax Débbi sëriñ Ngañ Fay sëriñ Masamba Roqee Sàll sëriñ Moor Ndumbe Diop ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen nag ñoom àndaloon nag di liggéey ngir jëmmi ku baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasuul ca 1915 nag la waajuram wi nag di sëriñ Modou Absa Fall comme nag ay magam nag jébbal ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ñu mën caa ràññee sëriñ Moodu Asan Faal ak sëriñ Mayoro Faal booba nag sëriñ Maxtaar Faal mi nag tuut tànk la mi ngi toll itam nag ci jàng ginnaaw bu sëriñ Moodu Absa Faal nag ànd ak doomam yooyu nag ba indil leen ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul Seexul Xaadim nag mi ngi ko doon laaj kan nag nga bàyyi nag ca kër ga mu ko xamal nag Maxtaar Faal nag laa fa bàyyi Seexul Xaadim nag téye woon na nag ñaari doomi sëriñ Moodu Absa Faal yooyu mu fob sëriñ Moodu Asan Faal nag ba nag ci kër gi fob ma yoro Faal boole ko nag ci jàngkati kaamil yi sëriñ maxtaar faal nag wéy nag des nag ci ron waajuróom nag di sëriñ moodu absa faal ci loxoy waajuróom la nekk ba ni waajuróom génnee àdduna ci atum 1940 laataa waajuróom nag di génn àdduna ndigal li sëriñ maxtaar faal mujjee def nag ci ndigalul waajuróom taayif mbàkke nag la ko yónni ci cheikh mamadul moustapha mbàkke nag la ko yónni doon ko xamal ne na xamal cheikh mamadul moustapha mbàkke di ko xamal ne daal àpp ba daal daa mel na jege si na mu ko doon laaj nag ndigal ginnaaw nag bu àpp bi ñëwee bi sëriñ maxtaar faal soleew daal sallam nag ñëw ci dëkk bii nag di Touba laaj nag kii di cheikh Mamadul Moustapha Mbacke ñu di ko xamal ne daal cheikh Mamadul Moustapha Mbacke nag ma nga taayif mu solow dàllam nag dem taayif di ko xamal ne daal sama waajur wa sëriñ Moodu Absa Fall nag moo ma yónni ci yow mi ngi laaj ne wala mi ngi wax ne lii di àpp ba daal dafa mel ne jege si na mu doon laaj nag ginnaaw nag bu dogal bi nag ñëwee naka nag lay def cheikh Mamadul Moustapha Mbacke nag mi ngi doon xamal nag sëriñ maxtaar faal di ko wax ne na wax mu sëriñ Moodu sa Fall di ko xamal ne defal nañ ko njiig Fall googu nag mu nekkuk Touba am saa àdduna nag nañ ko denc foofu joxoon na ko itam nag ay ñaan ngir nag mu jox ko waajuram woowu nag di sëriñ Modou Absa Fall ginnaaw buñ fa defee ay fan nag la sëriñ Modou Absa Fall nag génn àdduna sëriñ Makhtar Fall moo wax sëriñ Baara Faati Mbóoj doon ko xamal ne nag Cheikh Modou Moustapha Mbacke nag doon na wax ne sëriñ Modou Absa Fall génnee àdduna nga taxawu ko ba tax na sëriñ Baara Gay Faati Mbóoj moo taxawu nag sëriñ Modou Absa Fall ginnaaw bu sëriñ Modou Absa Fall nag génnee àdduna Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke itam nag dajale woon na njabootub sëriñ Modou Absa Fall gi dëkk bii nag di Touba doon leen xamal ne lépp loo xam ne nii daal war na ci sëriñ Modou Absa Fall ndonoom li nag yéen ko war a sàmm sëriñ Modou Assane Fall mi nga xam ne nii nag moom moo ci magoon Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag di ko xamal ne soo demee nag nga toog toogaayu sëriñ Modou Absa Fall lépp loo xam ne nii nag daana ko digle nga di ko digle lépp loo xam ne nii itam nag daana ko tere soo demee itam nag nga di ko tere ndax kat yaay sëriñ Modou Absa Fall doon xamal nag sëriñ maxtaar faal di ko wax ne itam nag lépp loo xam ne nii sëriñ Modou Absa Fall sa waajuroo nag joxoon na la ko soo demee nag nga wéy itam nag di ko yor bépp yónneen boo xam ne itam nag daa nga ko dem soo eggee itam nag nga wéy itam nag di ko dem fépp foo xam ne nii itam nag daa nga ko fa taxawu soo demee itam nag nga taxawu fa sa mag ji ngir jëmmi nag sa waajur wa doon xamal nag sëriñ Yoro Faal mi nga xam ne nii nag moom moom mag nag sëriñ Maxtaar Faal di ko xamal ne nag yow ba nga ni nag yaa ngi ci sama ndigal ndax pareegu ma nag ci yow biñ ci tegaatee nag lu tollook ñaari at mu ci atum 1942 Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag doon na dem Ndar ànd ak Cheikh Mamadou Bassir Mbacke bi ñu jëlee saxaar gi nag ba tolloog sàkkal wàccoon na fa nag yónni woon ay ndaw ci dëkk boobu nag di njiig faal wool ko njabootug sëriñ Modou Absa Fall gi ginnaaw bu njabootug sëriñ Modou Absa Fall gi ñëwee nag Cheikh Modou Moustapha Mbacke nag mi ngi leen doon fàttali lam leen waxoon nag ca daarul xuddoos doon leen xamal ne lépp lu waral daal ci ndon ak sëriñ Modou Absa Fall sëriñ Modou Assane Fall daal yow la war lépp loo xam ne nii nag mooy jëwriñu kër gi sëriñ Makhtar faal nag yow la war ma ngi leen ci doon dolli na nag mayuk suñu boroom mi ngi mel ne daal nga rombu géej yorug bàttu tànq nag ca ndox ma la des ca ndox ma nag na mu toll mayuk suñu boroom nag Modou Moustapha Mbacke waxee njabootug Serigne Modou Absa Fall gi Serigne Modou Assane Fall nag mi nekkoon xalifab Serigne Modou Absa Fall la doon xamal nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke damaa bëgg a dem nag Saalum tuut fa nag ay tool Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag joxoon na ko ndigal nag ñaanal ko loolu moo waral sax Serigne Modou Assane Fall génnee àdduna nag ci suuf soosu nag di Saalum keroog nag bi Cheikh Modou Moustapha Mbacke nag nekkee sàkkal te woolu woon njabootug Serigne Modou Absa Fall gi Cheikh Mamadou Bassir Mbacke nag rakkam itam nag la àndaloon ba tax na itam nag Serigne Makhtar Fall tudde woon Cheikh Mamadou Bassir Mbacke Mbàkke bisu keroog itam nag la ko ko wan di sëriñ Basiiru Faal moom sëriñ Maxtaar Faal mu wéy nag des nag ci dëkk boobu nag di njiig Faal ba ni mu génnee àdduna ci atum 1945 bi tubaab bi laaj nag ay soldaar ngir ñu dem nag ci guerre mondiale bi di 14 18 bi sëriñ Maxtaar Faal nag moom lañ tànnoon nag comme soldaar waaye booba itam nag tuut tànk la ku ñuy wax Moodu Maxtaar Njaay dëkk ci dëkk bu ñuy wax mus laajca moo mujj demal nag sëriñ Maxtaar Faal nag ci guerre bi sëriñ Moodu Maxtaar Njaay mii nag dem na ci guerre bi ñibbisiwaat na li 1923 ba ci atum 1927 lépp loo xam ne nii nag waajuróom wi nag mi ngi koy yónnee ci ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci loxom itam nag la koy tekk mu yit ko ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul fépp foo xam ne nii itam nag waajuróom wa itam nag ma ngi fay dem sëriñ maxtaar faal mii nag la fay yónni ndax kan moom la bàyyi woon ci kër gi mu nekkoon ay gëtam ak i tànkam bi fi seen waajur yu bàyyi ko nag di sëriñ moodu absa faal moom la njabootuk sëriñ moodu absa faal gi itam wiy bàyyi nag ci poste boobu ko waajuróom bàyyeeloon muy jëwriñu kër gi sëriñ moodu asan faal nag nekk itam nag xalifab sëriñ moodu absa faal sëriñ maxtaar Fall nag nekk itam nag jëwriñu sëriñ Modou Assane Fall ba tax na lépp loo xam ne nii waajuróom daana ko def wala daana ko defal waajuróom magam ji nag di sëriñ Modou Assane Fall itam sëriñ Makhtar Fall itam nag defal na ko ko bi magam nag di sëriñ Modou Assane Fall nag di génn àdduna ci atum 1945 ci feebar nag bu ko tëraloon ci Saalum sëriñ Makhtar Fall mii itam nag moo ko taxawu nag ba mu génn àdduna moo ko jëlee Saalum itim indi ko nag ci dëkk bu sell bii nag di Touba jébbal ko nag kañu yaakaaroon di Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké ginnaaw bu ñaaree dellu xalifa waajuram nag toogee xalifa itim nag di sëriñ Mayora Faal sëriñ Maxtaar Faal itim nag moo wéy des nag nekk itim nag jëwriñu kër gi ba moom itim nag ni mu génnee àdduna ci xilaaf ak magam sëriñ Mayora Faal ci atum 1945 lu méttee métti itim nag dal na njabootuk sëriñ Moodu Absa Faal gi ndax ci la ñàkk taawu sëriñ Moodu Absa Faal ba di sëriñ Moodu Asan Faal ci la ñàkk itim nag doomu sëriñ Moodu Absa Faal ba di soxna Siini Faal ci la ñàkk itim nag sëriñ Maxtaar Faal mi ku moom sëriñ maxtaar faal ginnaaw bu fi waajuram jógee di sëriñ moodu ab faal dafa ànd ak ay magam ñu jébbal lépp nag cheikh mamadul moustapha mbàkke ba tax na lu takkoo takkoo takkoo takku liggéeyal na ko cheikh mamadul moustapha mbàkke cheikh mamadul moustapha mbàkke itam moo ko waxoon wéyal des nag ci sa dëkku waajur woow di faal te nga wéy nag yor lépp loo xam ne nii nag sa waajur wa nag dénkoon na la ko muy jëwriñu njabootu sëriñ moodu absa faal gi cheikh mamadul bachir mbàkke sëriñ maxtaar faal nag ko jaxasoo woon ak moom la ba tax na itam nag tudde na doom sëriñ basiiru mbàkke ibnu sëriñ tuuba xaadim rasuul sëriñ mbàkke madina ibnu cheikh mamadul mustapha mbàkke ku wóolërante woon ak sëriñ maxtaar faal la sëriñ mbàkke madina nettali na na baay sëriñ faal di ko wax ne sa waajur wa sama xarit la woon saa bu ma saa ñëw tundoodi di seet ci cheikh mamadul mustapha mbàkke daanañu indaaleel dara te sa waajur wa nisiroon na maa tudde doom ndax waxoon na ma ko te joxoon na ma ab jaaro boo xam ne nii doon na ma ci wax ne dama la cee takk nag ak xarit jaaro bi nag moom jëmale ko loolu itam nag tax na doomam ji nag di bàyyi sëriñ faal tudde na sëriñ mbàkke madina doom ngir fayee ko nag yéene waajuróomam wa ko jaxasoo woon nag sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma la ba tax na bi fi cheikh mamadul moustapha mbàkke bàyyi ko dafa jël léppam nag jébbal sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma waaye laataa cheikh mamadul moustapha mbàkke nag di fi bàyyi ko sëriñ cheikh mbàkke nag daana defa ay tournée ci tundu njàmbur woowu sëriñ maxtaar faal daana ànd ak moom mi sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma njaboot gi suñ cheikh mbàkke gaynde ma nag daa seet si nag ci tundu njàmbur woowu ñu man cee ràññee sëriñ sa deex si la man cee ràññee sëriñ arif loo man cee ràññee sëriñ moodu xumma man cee ràññee sëriñ masata loo ci dëkk bu ñuy wax dabbaay saar man cee ràññee ma roqaya sàmbu ak moom sëriñ maxtaar faal bu sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma nag masaa ñëw na ci tundu njàmbur woowu di amal ab tournée mbooloo mii nag daa nañ ànd ak moom mu nekkin nag ku bëgg sëriñ tuubaa seexul xadim ku fonkitim nekkim yaakaar di cheikh mamadou moustapha mbàkke ku ñuy wax sëriñ mbay njaay sagata seede na nag sëriñ maxtaar faal di wax ne sëriñ maxtaar faal ku bëggoon mu dul moustapha mbàkke la lu masaa yor nag wala mu am ko daana wax ne yéene wu ko boppam nag mu cheikh mamadul moustapha mbàkke dong nag la ko yéene moom sëriñ maxtaar faal nag addiya yi mujj yit nag mu cheikh mamadul moustapha mbàkke ndakaaru nag la ko fekk rakkam soxna kumba galo faal la yónni woon nag ndakaaru ngir nag mu yit addiyee nag cheikh mamadul moustapha mbàkke taalibeem bu ñuy wax ibra basin saar nekkoon itam nag soxna Kumba Galo Fall ngir mu yit ko nag Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag ca Ndakaaru addiyee nag ma nga tolloon ci sàqum ñeent ak 10 la Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke doon laaj nag soxna Kumba Galo Fall Maxtaar mu bokk ak Modou Assane Fall soxna Galo Fall nag di ko xamal ne maag Modou Assane Fall ak Maxtaar Fall ak Yoro Fall ñoo bokk nag benn waajur wu góor ak waajur wu jigéen Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag mi ngi doon xamal nag soxna Kumba Galo Fall di ko wax ne soxna Assane Diop de jigéen la ju baax ndax ñu baax ñi daal ku leen mën a meññ ku baax nga ci la Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke nag joxe soxna Kumba Fall ndigal di ko xamal ne nag na yóbbu dugub ji ci dëkkam boobu nag di daaru nayim ngir bojjal koko sëriñ Maxtaar Fall nag am na ay soxna nag yum dëkkooloon ngir nag di liggéey ci wàllu kër ca biir soxna ya nag ñu mën caa ràññee soxna suñuy wax soxna fi Kebe dëkkoon nag ci dëkk bu ñuy wax Njéy Saa Touré ak soxna suñ doon wax soxna Ayda Fall cosaanoo itam nag ci dëkk boobu nag di Njiig Fall di doomu sëriñ Njiig Moodu Ngutti Fall baneen soxna nag bu mu dëkkoo waatoon wax soxna Amina Sëy dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax Céjeen Ndak Diop dëkkoon ci dëkk bu ñuy wax kër maa Anta Diop ñeenti soxna yi nag la Serigne Makhtar Fall dëkkoo woon Serigne Makhtar Fall nag mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral ci bisub àllarba fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu ci atum 1364 ci gàddaay gi àllarba fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu ci atum 1364 ci gàddaay gi dëppoog muy mercredi 25 juillet 1945 mercredi 25 juillet 1945 ci post de santé nag bu sàkkal ci teewaayu xaritam bu ñuy wax nag Serigne Moussa Sarr nekk itam nag ab kilifa diine ci tundu sàkkal woowu ginnaaw bu mu génnee àdduna moom sëriñ maxtaar faal ba ñu yëgal ko ki mu yaakaar di sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma moo wax sëriñ baara faati mbooca mu jullee nag doomu sëriñ moodu sa faal bi bisub keroog nag bi sëriñ baara faati mbooj nag di jullee sëriñ maxtaar faal mii doomam ji nag di sëriñ nasiiru gay fekke na nag bisub keroog ñu jébbal ko boroomam nag ci njiig faal bisub sarax sa sëriñ cheikh mbàkke gaynde faatma yabal na fa nag ab délégation ci njiitul nag sëriñ moodu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 amoon na nag ab bis nag bu ñu koy fàttaliku ci ñu tudde ak màggal bisu fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu di bis bi mu génnoon àdduna daanañ ko ci fàttaliku nag ci ak màggal doomam ji mu tudde woon cheikh mamadul bachir mbàkke di sëriñ basiiru faal moo ko daa amal nag ci dëkk bale nag di ndakaaru ci quartier nag bi biñ tudde kolobaan waaye ginnaaw bu njabootu sëriñ moodu sa faal gi nag waxtaanee nag ci seen biir doon xamal nag mbooleem njabootu sëriñ moodu absa faal gi leen wax ne nag bis yu bari yiñ jagleel nag njabootu sëriñ moodu absa faal gi nag mën naa ñàkk nañ bàyyi bis yépp nag benn bis nag buñ jagleel sëriñ Modou Absa Fall di ci fàttalikuwaale nag ay njabootam bis boobu itam nag bàyyi nañ ko jàpp nag bisum ñaar fukki fan ak juróom-ñaar nag ci weeru wi nag di rakkaat ji gàmmu di bis bi fi sëriñ Modou Absa Fall bàyyi ko ñu koy fàttaliku nag ci njiig faal ñuy ñaan ca doomu sëriñ Modou Absa Fall ba kañ doon wooye sëriñ maxtaar Fall yàlla nañ ko suñ boroom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi nag yàlla na ko suñ borom saafara ci dara jay doon liggéeyal amiin liggéeyal